jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi ndamoo ak di safoo seen sit internet bi di 24 actu euh, tey nag seen invité de la rédaction suñu ganu tey nag nekk soxna dabañaa di yëngatu tamit ci politique nekkee ci parti euh, réew mi denk tamit responsable jeunesse féminine kon euh, soxna Daba Niang ñu bàyyi la nga nuyoo suñu gan maa ngi lay nuyu. waaw ah, jërëjëf soxna Soumane lay fay maa ngi nuyu mbokku internet yëpp rawatina ñi nga xamante ne bii ñu ngi suivre 24 actu. comme ni nga ko waxee soxna Daba Niang mooy responsable jeunesse féminine bu parti mi fii ci commune bu Touba en même temps nekk membre au niveau de la secrétariat national bu jeunesse féminine bu parti Rewmi euh, soxna Daba euh, jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu mais mën nañ la laaj euh, kañ nga dugg ci politique ak lan moo la ci dugal. waaw jërëjëf Astou question bu ma neex soxna Daba mën naa ne yàggul bu ma duggee ci politique bu ma koy xayma un an et demi yooyu rek lay nekk. ci législative yi la mais dafa nekkoon tamit ambition ci man que ne dama nekk ndaw dama war a servir sama réew te gis naa que ni gis naa tamit leader boo xamante ne bii mooy ki ma doy te gis naa ay vision ay ambition ak li nga xamante ne bii moom la nar pour boo xamante ne bii dénk nañ ko réew mi di Sénégal moo tax ma engagé wu ak gis coono yi nga xamante ne bii sénégalais yi ñu ngi koy dund actuellement te dara tegul leen ko lu dul Mm-hmm. manque gouvernance maanaam amuñu gouvernance bu baax. mais euh, d'abord est-ce que mën nañ xam tamit lan mooy dugal ci parti bi nga xamante ne moo di parti réew mi. waaw mooy comme li ma lay wax rek dama xool ci leader yi. comme engagé wu naa pour politique dama xool ki nga xamante ne bii moo ma doy muy le président Idrissa Seck vision am doy ma programme am doy ay conviction am ma doxalinam tamit doy ma ma engage wu pour politique ma choisir ki nga xamante ne bii jàpp naa la mooy le meilleur candidat mooy le meilleur leader. moo tax ma engagé wu ànd ak le président Idrissa Seck dugg ci mais boo xoolee tamit euh, candidat yi mën nañ ne bari na tey président Idrissa Seck moom kese nekk fii est-ce que amul tamit koo xamante ni mën nañ ne moom nga njëkk jaar dugg di ñëw ci Idrissa Seck. non non non man ci Idrissa laa njëkk laa njëkk a commencé njëkk a milité. Euh, mën nañ dikkaat ndax mën nañoo xam seen i activités fii ci dëkk bi sell bi di Touba. waaw comme boo gisee nii comme ñi ngi ci période campagne euh, jëm ci élection présidentielle yi tey fii may waxee ak yow nii président mu ngi ci yoon. pour war a ñëw Touba tey fii la war a fanaan si ñu ngi ko war a teetu sax teetu bu am solo euh, tatagal ko dugg ak moom ci dëkk bi waa Touba yëpp xam ne seen taalibe seen doom ñëw na fanaan si fii ci Touba bu suba ak jàmm incha allah ñu ngi war a def meeting du siècle meeting bu mag a mag ñu ngi ko war a amal Mbàkke ci boulevard bi ñu ciy invité sympathisants yi militants militantes yëpp ci parti Rewmi. bu mel ni question bi yow da nga dikk ci président Idriss Seck ñëw a ñëw tey mais avant laa la wax parti Rewmi ñoom lan lañ def ci dëkk bu sell bi de Touba. waaw avant comme ñu ngi woon ci comme ni ma la période campagne bi chaque jour ñu ngi def visite proximité ñi ngi def ay caravanes comme man maa nekk responsable jeunesse féminine bi. maa ngi doon def benn tournée de sensibilisation bu ma doon def di dem ci gox yi comme bu ñu gisee Touba actuellement comme dafa am ay centre de vote yu bees yu ñu fi installé moo tax du activité boobu jugoon lañ doon ko def fan yi dem ci gox yi di expliquer nit ñi ñu dem jëliwaat que ni am na yeneen carte d'identité yu bees yu leen di xaar bokkul ak carte d'identité yi ñu yoroon comme dañoo toj seen centre de vote yi sensibiliser leen informer leen ba yaakaar naa information boobu ñu bari jot nañ en même temps tamit ñi ngi dem ci askan bi di rencontrer ak ñoom ànd ak euh, ki nga xam ne mooy le coordonnateur communal monsieur Mafari Ndiaye koy saluer passage mu nekk jàmbaar di liggéeyal le président Idrissa ñi ngi ànd ak moom di dem ci gox yi gox goxaat yi communes yi ak yi fépp yëpp mais tamit est-ce que tamit yow nga xam en tant que nekk jigéen yaa ngi jàppale sa moroom jigéen ci côté politique bi ak euh, naka la naka ngeen nga leen di jàppalee ni ma leen di jàppalee mooy dem ci ñoom déglu leen ñu wax ma li nga xamante ne bii mooy seeni ay coono ak li ñuy jàmbat ci ay jafe-jafe ñu jël ko jébbal ko la président Idrissa am yaakaar que ni dina am ndam le 24 février incha allah te bu ko amee jafe-jafe yooyu jeex. te loolu moom yow yaa ngi ciy dox bu baax a baax a baax. yaa ngi ciy dox bu baax a baax tout temps ci la ñuy ci la moom.

Euh, nekk nekk président mën nañ ne boobu yàgg naa laaj réew mi mën nañ ne Idi quatrième président wala est-ce que yéen a ngi xalaat xaar ci moom pour moom mu nekk cinquième président. loolu la ñuy xaar ci moom te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. naka ngeen ci amee yaakaar. xam nga ne ku gis actuellement nii tendance bi ni mu demee xam na ne ñun sax wax deuxième tour ñun waxuñu ko instant bi premier tour la ñuy wax Idrissa Seck ñun dañoo gëm à 100 pour cent que ni dafay gagner élection yi tour. parce que gis nañ que ni population bi jox nañ ko loxo te xool nañ xam nañ ne jafe-jafe yi nga xamante ne moom la Sénégal di dund ak guute gi nga xamante ne kii fi nekk moom la dugal ci Sénégal muy Jimboori. lan mooy Jimboori. ah Jimboori mooy ku fi nekk tur bi laay bañ a tudd man. ah non non tur bi si boppam. il leer parce que nit ñi dañ lay seetaan kon dañoo bëgg tamit nga wax lu leer loo xamante ni nit ñi dinañ ci mën a teg loxo. doon arrangé mooy kii nga xamante ne moo fi nekk def boppam buur def boppam bu mi ko wax mu tëj jël lépp teg fi dinaase fay saal yow nga jàpp ne moom dafay jàpp ni ñi di leen tëj rek sans ñu def dara xanaa yow kenn du la fekk ñu jàppale di la dugal ci prison bi laa yaakaar sax de ndax noonu lay doxee ndax ñi muy tëj amul lenn loo xamante ne bi loolu leen mën a accuser pour mu tëj leen leen rek la jàpp mooy man maay buur kenn du ma fi doon te actuellement nit ñi dañoo passé foofu nit ñi nekkatuñ ci ay royaume boo xoolee boo xoolee moom nga xamante ne président Macky Sall moom dafa mel ne wóolu na boppam parce que moom heure booy buy wax rek moom waxul wax deuxième tour moom moom waxul dem dem nekk deuxième tour moom waxul ay waxam. non wóolu wóolu boppam sax Sénégal yi lay bële fenn nii rek mais moom xam ne résultat bi koy xaar.

ne moom su fekkente ne perte na ko moment bii moom mun mën naa dem toogi. ñun xalaat xalaatuñ sax perte. perte moom instant bi non non non ñun xalaatuñ sa perte ñun jàpp nañ que ne le président Idrissa day doon président du. mën na am parce que moom bii nekkul c'est mu mel ni Touba coow xaw na ko fee topp ndax gis nañ tamit ñi nga xamante ne ñoo di famille Khadim Bousso euh, surtout ay doomam yëkkati ay kaddu tamit jëmale ko ci moom am na ci ñoo xam tamit commencé nañ ko xaw a ŋàññi tamit mu nekk loo xamante ni lu xawoon a doy waar la est-ce que loolu jàppoon na mën na ko may ndam fii ci Touba rawatina mu mu jël euh, li nga xamante ni moo di réewum Sénégal. ñoo bu dee Touba ñun suñu xel dal ak lu mën di lu mën di génn comme actualité ak yooyu sax comme man. jotuma suivre loolu ngay wax aw ci information mais ñun après li ñuy gis ci terrain bi ak euh, waa Touba li ñu wax ak ñun suñu xel dal na. jotoo ko suivre moom mais war nga ci mën a am ay information parce que yow Touba am na ci côté boo xamante ni fi nga féete muy parti réew mi. mais côté boobu dama lay wax bu dee Touba. Mhm. ak lu ñu ku mën di génn ak lu nit ñi mën di wax ñun suñu xel dal na que ne président Idrissa Seck mooy gagné Touba. mais tamit xam nga coow loo xamante ni loo a nga ci wax. toll Sénégalais surtout waa ñoom ñoo bëggal seen bopp le président Idrissa. Sénégalais yi ñoo la ko wax wala yow yaa bëgg sa bopp Idrissa Seck bëgg see boole Sénégalais yi. ñun ñu ngi ci terrain bi ñu ngi dajee ak Sénégalais yi ñu ngi daje ak ñoom te ñoom ñu ñuy wax te li ñuy wax seen biir xol lañ koy tibbee. nit ñi moom nit ñi moom wax rek lañ mën mais mun nit moom ins bi mën nga man ko xamoo ba xam kii dëgg na si xolam wala dëggul si xolam. parce que ah, non non non non non Sénégalais yi surtout waa Touba fii xam nga fu ñu toll actuellement zéro carte pour Macky léegi zéro carte pour Macky Sall foo ko teg. dafa war a mën a nekk ndax Sénégalais ñoo doyal ci moom nga nekk président sa premier mandat sénégalais yi ñëpp jéppi la. nan ko jéppee. sénégalais ñu ngi doon ci Macky Sall Macky fi ñëw wax. def dafi def cinq ans du moins def fi sept an mhm. ñëw fi autoroute Ila Touba bi nga xamante ni moom la doon naxee waa Touba yëpp di koy bàkkoo. Mhm. ba mu demee ba xam ne pare na nekk reçu yu autoroute du Sénégal moo ci nekk. kon xam nga ne naxaate mënut a paasal te booy xool sept ans yi nga xamante ne Macky Sall def na ko ci pouvoir bi mm. amul lenn loo xam ne danga ko mën a génne nga ne lii waa Touba moom lañ bénéficié ci Macky kon nag koo xam ne bilan zéro la kon zéro carte la war a am. Macky Sall Touba moom def fi dara moom. gisuma leen lu mu fi def. pendant sept ans gëstu woo Sénégalais yi fii Touba am na hôpital bi mu leen fi digoon hôpital boobu lu mat 3 ans yi ñu bàyyi ba élection yi des ay 3 mois ñu commencé daaje ko kocc koccal xam nga ne kon ñooñu dañoo yeb askan bi kon nag ku faalewu nit ñi lu mat 7 ans sénégalais di lay woo gestu woo leen kon doo ñëw ba jour élection nga bëgg ñu gestu la comme que faalewuñu woon comme nag comme élection yi ñëw di tontu ci li wax ne yéen seeni militant Thiès la yem te Sénégal tamit yaatu loolu ñu xool ne tamit électoral bi tamit dafa yaatu lan moo tax tamit ngeen dënmal fii ci Touba est-ce que mën ngeen fee gagné ci élection yi bien comme suñu militant Thiès la yam yow sax ay reetaan la may def. Ah. yaakaar naa kuy seetaan le président Idrissa tournée yi muy def ba campagne bi commencé ba léegi. Mhm. fu ñu dem rek da nga naan fii moo ëpp doole. yaakaar naa waa Thiès sax comme dañoo naan Idrissa ndaamal Kajoor mais ñun lu ñu génn mooy Idrissa ndaamal Touba. yow yaa ko wax wala waa Touba ñoo ko wax. waa Touba benn question dañuy poser souvent. président kañ la fiy ñëw ñun dañoo bëgg rek ngeen wax ñu kañ la fiy ñëw pour ñu engagé wu ñoom ñëw ca mitin ba kon na nga xam ne waa Touba pare nañ pour soutenir taalibe sëñ Moussa Nawel bi muy le président sa te ñu ngi leen ci woowaale que ni bi ngeen doon xaar boobu ba léegi mardi lay doon incha allah suba. mais sénégalais yi ñu sénégalais yooyu di wax loolu di yàkkamte Idrissa ñëw fii est-ce que yow mën nga teg loxo ne ñoom kat lii ak lii ak lii la defal ba tax ñu yàkkamte ko pour mu ñëw. li leen Idrissa Seck defal bi nga xamante ne ak programme bi nga xam ne le président. mais nit ki yow da ngaa am yaakaar ci moom te commencé wul mu defal la lii ak lii ak lii nga mën cee teg loxo ne moom lii la ma defal. commencé bi mooy mënul passé ñu teg ko fi mu nekkoon fi premier ministre jot na fi 2000 ba 2003 li mu commencé woon liggéey sénégalais yépp teg ci seen bët un an la def euh, chantier Thiès bi commencé soppe xar kanamu Thiès. am tamit euh, yan programme ngeen bëgg a jàmmaarloo ak kii di président Macky Sall. waaw programme bi mooy li ko président di waxee rek da comme Sénégal d' abord. Mhm. li mu njëkkee mooy jiital Sénégal. ak moom bi muy def tournée avant muy dugg ci législative ci présidentielle yi def na tournée te bi mu demee ci Sénégalais yi li ñu ko jàmbat loolu la jël def ci programme am mooy sénégal yi dañoo soxla ku yore Sénégal teg ko ci yorin bu sell te dëgg te yërmande ci askan bi loolu mooy li nga xam ne mooy mu njëkk ci programme bi mu tëral muy un 1 3 15 cinq xayma ci ay points yu baree bari. ñu ngi gis na tamit euh, ki di président Macky Sall def na inigration terre bi def tamit autoroute Ila Touba bi ñu bëri tamit nee nañ daf ko yàkkamte liggéeyu yàkkamte la ko def loolu tamit yéen euh, ndax daf ko bëggoon a boole ci programme yéen loolu ban gis-gis ngeen ci am. yaa ngi naan inauguration rek mu commencé parce que <laughs> mooy inauguré yaakaar naa chantier bu pare la ñuy inauguré. Mm. mais Macky Sall ñëpp gis nañ lépp lu mu bu ñu xëyee suba tëj nañ ko. la fi inauguré ñu tëj ko. Ila Touba bi inauguré nañ ko ñu tëj ko. Mm. terre bi pare gu des na ay mois. ak yeneen ak yeneen chantier yi mu inauguré yëpp ba dañ ne léegi jigéen ñi ñu koy ñaawal na Macky Sall bu la rombee nga def sëba bu baax sax naan la taxawal ba inauguré ko kon nga xam ne kooku bëgg deuxième mandat te amoo bilan moo metti mm-hmm. loolu moo ko teg rek coono yi mu nekkee yëpp di inauguré loo xamante ne bii parewul. kon ñu gis ne tamit kii di président kii di Idrissa Seck war na fee ñëw mën nañu sax war naa ñëwaat fii di Touba ñu bëgg a xam tamit yéen euh, yan programme ngeen di ngeen ngeen di xaar ci moom lan ngeen di xaar ci moom ak nan ngeen koy euh, dalalee daal. waaw comme ñëwoon na fi. ndax bi muy dëgmal campagne bi mhm. ajjuma bi ci njëkk avant campagne bi dafa ñëw fii mhm. ba ci kanam xalifa bi mu xamal ne dafa ñëw sàkk ci ñaan mhm. ak ndigal xalif bi ñaanal ko jox ko ndigal mu soog a commencé liggéeyam boobu nag ñëwoon na fi en tant que taalibe ku doon sàkk ci ñaan ak ndigal tey jii tamit dafay ñëwaat taalibe bu ñëw soxla population bi pour waxtaan ak ñoom. te tamit élection yi soreetul te ñu bari ñu ngi ciy séntu loo xamante ni mën nañ ci côté de violence la man nag yéen naka ngeen mën a def ba loolu nga xamante ni moom la ci nit ñi di xaar ngeen ngeen gën koo maytu bu baax. nga li ñaan ko rek mu nga xamante ne bii moom mooy njiitu réew. Mhm. moom mhm. kon jàmm moom sa kàddu yu mujj. waa sama kàddu yi xanaa di lay jaajëfal rek. di mhm. jaajëfal euh, internet bi yëpp ñu doon suivre. Mhm. et xamal que ni le président Idrissa Seck. Mhm. ñëw Touba. mardi le 19 ñu bëgg a def meeting du siècle. ñu ciy woo militant yëpp. di jaajëfal toute la jeunesse féminine. patriote bi nga xamante ne bii dañu engagé wu. ànd ak le président Idrissa. mu wax ñu jàpp rek incha allah le 24. soreetul. ñu daal di daaneel ba 18 heures rek bu koy sant bu baax di ko gërëm mu nekkoon soxna Daba Niang di yëngatu tamit ci politique nekkee ci parti réew mi nekk tamit responsable jeunesse féminine ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mu nekkoon tamit invité de la rédaction Cheikhouna njaay moo nekkoon ci caméraman bi ak Baysal ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant bu baax képp ki nga xamante ne yaa ngi safoo seen seen invité de la rédaction di leen jox dig daje ci yeneen jotaay mbokk yi jërë ngeen jëf